téléspectateur wu Thiès TV kenn ku nek fa nga tok ma nga la fay fekk ne la jabb loxo dila wacce sa waccu ay mo xam nga kilifa diine wala nga kilifa adam mo xam nga ndaw ni ñun mo xam itam nga doon sunu sœur sunu yaay sunu papa ak képp ku mu mëna doon. bu ngeen gisee jotaay bi liko waral yeen ñëpp xam ngeen ko gis ngeen euh, générique bi legi wane nako. mu nek sunumber, émission suñu mbeur suñu mbeur di émission bi nga xam tane mom lañu jaglél l'ensemble de la monde du monde de la lutte yi nga xamantene ñom ñoo nekk fi ci diwanu Thiès bokki yi dikkanti nañ ci benen numéro ginaaw bi nga xamantene togon nañ diir bu yàgg gisul leen ñu ci biir studio bi ñuy waxtane walu lamb waye taxul ni nak télé bi comme nim ko baaxo di def ñi doon and ak yeen ci programme lamb yi nga xamantene mom moy xew fi ci biir diwanu Thiès yàggul dara demoon nañ fi ci diwanu Touba Toul ci ak Serigne Cheikh promoteur de la jeunesse juga nañ fa ànd ak Baye Samba promoteur bu magui barki dembo Ndiaye chat Samba jaw ak ki nga xamantene mom moy mooy numéro 2. siri Diakhaté production promoteur bu magui ñaar yoon diggante Safi Ousmane Gandi Gallo way digante ki nga xamantene mom moy fissa Samba jaw ak Arobase bokki barki dembo Ndiaye ak Bawol production asan Ndiaye bis bu mag ndaysan tay ñu togaat fi war ko netali wat ñukoy sante yalla bam ñu may ñu dug ci ak jamm ko ci jamm seen émission sunu mbër ngeen mën ci bu baax mbay papa ji ak MC Mbër ay ku ne xam ne ni MC Mbër jamono ji a dafa am lu nga xamante ne mo moo koy tënk ndaxte julli gi mo jub ci ñukoy ñaanal sunu defal ko jamu. mu iya jamm ci li nga xamante ne mo moo des ci julli gi bu ci ak jamm ñu ñew and ci jamm jox leen ko ci jamu nañ ko baaxo di def mbokk yalla jamm na sen seen émission sunu mbër en direct sur la Thiès TV ñu ñew tay ci banen facette wala ci anam andi ci ak kan ay gan yu mat gan yu nga xamantene tay tey mbokk téléspectateurs yi bu ñu leen genné du ngeen laaj ñi lan moo tax ñuy tok ci plateau bi ñen ñi di ay mbeuru lamb barki de mo njaay ñu def fi jaloore bu rëy wa Thiès waa Sénégal ñepp tek ci seen bët lolu tax tay ñu ni bu ñu demee ba lepp dal ba lepp sedd dañ leen di wo ñu yaatal mbir mi may leen temps d'antenne ñu waxtaan ak ñom saafoonte ak ñom ci walu lamb way itam ñom ñu waxtaan ak seen mbokk ak seen fans mbokk yi ñu am ci ñaari champion ci ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo génnoon ci journée Baol production bi ñu génn Assane Ndiaye kenn ki moo doon bëree premier combat spécial mu bëre fa yàlla may ko ndam mbokk yi kookoy xaleb si te ñax bi wala sax xaleb taaxi kaw bi sañ nañ ko wax bu ñu ci naax xaleb bëgg sa waajur bi mbokk yi kooku nga xamante ne moom mooy le bureau de Boy Séeréer bu Tiwaawan ma koy ñaanal di ko encouragé bu baax a baax mbokk yi su ma ko waxee ngeen xam ne doomu day bàyyi jaaji laay wax mbokk yi su ma ko wala ma bamtu ko doomu ndey do do ngeen ko gëna miné ndey kan DJ kassa doomu ndey Gorgi, gi doomu ndey wa Cité Ñax tay mom la dalal ci plateau ñaan ko Clé d'or l'enfant de Medina Fall yamu ci bala ma ñew ci ñeneen ñi damay ñew ci mom bay ko mu nuyu ak les téléspectateurs dog leen andil sama yeneen champion yi ak sama yeneen gani mbeur ma ngi lay nuyu di la contane di la dalal ci chess TV waye bala mako jox mu ba tay mbokk yi dina jall ci benen champion ndaysan koku itam bu fi toge yakarna naa yi sax namon nañ ko ci plateau bi ndaxte mbër la bu nga xamantene dafa bok ci Thiès nek ci yonam di dem bok ci mbeur yi nga xamantene tay sañ wax ni bok nañ ci mbeur yi ëpp ciow fi ci diwanu ah sama jinne ji tel nga ma ubil large bi d'accord ma Lamine Lamine d'accord ma dag ma tel ubil sama large mais ba tay Lamine dessiner na plateau bi mbok yi ñoko gis jërëjëf lamin ci kaw mbokk yi ma ak Pambay le grand danan de R100 mbolo Pambay bu tias xale bi nga xamantene ni moy na borom sampati jàmm gën Cité Senghor R100 dar salam keur seigne Ablaye marché moussandé borom galas Dakar le grand danan barki be mo Njaay mo fi amul san bu rëy bi fi laale ki nga xamantene mom moy boy jobas am ci kawam ndam jël wu kenn lu warante ñukoy koy bu baax baax di encourager boy jobas wax gàcce gàllaama Assane Ndiaye keroog ñëpp a kontaan mbokk yi ma feggoog beneen daanaan kii euh, mention spéciale kenn moom wax naa ci moom waxati ci waxati ci toog na fi miin na plateau bi tey bu ñu génnee ci journée Assane Ndiaye bi ba kenn ku ne tey ci taatu garab yeeg fépp fu mën a doon ñuy waxtaane journée ba léegi tey mun naa ne ak quatre-vingt-quinze pour cent man sañ naa ko wax moom la ndaxte Assane Ndiaye dafa jël lépp jox ne ko doxalal montel combat yi organisation baa ngi géreel loolu moo tax ngeen faral may dégg ñu naan c'est un élément incontournable Pape mbay bu taxawu làmb Thiès Pape mbay manager général Pape mbay bu allu làmb région de Thiès Pape Mbaye bu CRG bu Thiès Pape mbay bu les amis de la lutte Pape mbay bu bu bu bu li mu tubaab ay casquette laf cat macha allah yàlla na la sat cat seexlu chéri Khady Ndiir moom laa ci fégool moom laa jox kàddu gi ginnaaw balaa maa ñëw ci ñaari champion yi ma bàyyi la nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu ngi lay dalal ci Thiès TV seen émission sunu mbër en direct fii ci Thiès TV mbaa bay waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur maa ngi nuyu ñëpp di nuyu comme ni ma koy faral di defee di nuyu sunu xalifa général ñun murit yi bu ma sañee wax ko muy sëñ Saliou Touré ndax moo fii suñu jëwriñ fii ñi nga xamante ni ay murit lañu soo fa jógee nuyu alaaji Muniru Jigéen boo fa ñëwee daal di nuyu sëñ seexloo Lo bu Medina Fall su ma ko defee nuyu naa murit yi nuyu naa tijaan yi nuyu naa Baay Faal yi nuyu jullit yi yàlla yëpp ah mais également damay nuyu aussi ah, monde làmb jël nuyoo bi teg ko ci loxo président Abibou jàlloo mi nga xamante ni mooy suñu kilifa ci nit ñi nga xamante ni ñoo fi yëngu ñun ñëpp ci làmb bu ko defee mu yóbbaale waa CRG de lutte bépp daal di jël nuyoo ménageurs yi teg ko ci ki nga xamante ne mooy sunu kilifa donte ko Xaadim Sall mooy sunu président mais Pape Ahmed Ndiaye mooy sunu kilifa di suñu doyen di suñu conseiller moom laay jël nuyoo ménageurs yi Thiès yëpp teg ko ci loxoom mu nuyul ma képp kuy ménageur ku ñu daal di jël nag nuyoo mbër yi daal di koy jox ki nga xamante ni mooy Moodu Anta Gueye mi nga xamante ni mooy tigre de Thiès di nga xamante ni moom la yàlla dogal mu nekk fi mbër mu mag ci dëkk bi ñu koy sagoo moom laay jël nuyoo boobu jox ko mu yóbbaale ay rekkam yëpp su ma fi jógee damay nuyu nag sama benn rakk bu xamante ni mi ngi dëkk fii ci Sampaate ñu koy wax Pape saw di xale boo xamante ni rakk la ci man ah ju sës ci man rek vraiment ma di ko nuyu ah di nuyu mboolem koo nga xamante ne ku fokk bokk ci famille saw la ak famille Ndiaye maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu également sama famille di Xadi ak sama doom di maman ay Pam Moussa Anta ak ñoom Ibrahima di nuyu Assane Mbaye Kumba Aan ak euh, mboolem ku nekk ci suma famille di nuyu waa écrit bi nga xamante ni mooy écrit bëgg sa waajur su ma ko tuddee muy écrit bi nga xamante ni falaa débuté daal di nuyu nag écrit yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir cees yëpp également di félicité euh, Pape Mbaye bi nga xamante ni tey jii moo tax ñu toog ci jataay bi yàlla dogal mu am ndam loo nga xamante ni bërki démb fii ci Thiès di ndamul cees gépp ñu koy ñaanal ndam loolu doon ndam lu ko ji te yeneen ndam topp ci di nuyu ah Clédor mi nga xamante ni aussi ci écrit bëgg sa waajur la bokk ñu koy nuyu ah di ko félicité moom it ci ndamam mboolem koo nga xamante ni am nga ndam ci bis boobu maa ngi lay félicité képp koo xamante ni ku ñàkk la tamit maa ngi lay encouragé di la xamal làmb yii rek moo ci am am ak ñàkk la ñi yàlla ñi nga xamante ni ñoo gañe yàlla suñu borom moo leen ko séddee ñi nga xamante ni ñoo ñàkk tamit ma leen di ñaanal bu ëllëgee suñu utiwaatee yàlla yàlla sama borom may di ñaanal mboolem koo nga xamante ni rek kuy safoo télé bii la di la nuyu yow ci sa bop tamit mbay di wax ni vraiment lambi ci amé na la ñukkal donte ko xalé nga yaa ci bay sa war duñu def nak doomi ñooy nak mom kenn ko ñaanal guddu fan da koy kenn ko ñaanal rëy di moes dang koy ñaanal mu guddu fan kon man ci li nga xamanteni ci nga nek di def lima la ci ñaanal rek moy nga guddu fan ndax so guddé fan diga egg fi nga xamni fo bëgg egg la lool daal mom lañ ci jàllalee ah ba ci kanam mu doon am nuyoo di nuyu également Assane jaay mi nga xamanteni ni vraiment dañuy wax Baol production mais mun naa wax ni euh, affaire bi du woon sax Baol production Pape Mbaye production la sax bu ma neexee parce que Assane turam rek moo ci figuré ci li nga xamante ni mooy bis boobu Assane xamul sax mbër mu ñu taxawal ci bis bi. lu dul waaw lu bokkul ak booy jabaas bi nga xam ni moom la fi indi. Uh-huh. mel moom la am ci mbër moo nga xamante ni wax na ak moom jël ko jox ma ko mais lu des ci loolu lépp mun naa wax ni ci sama loxo bi la lépp tegu hmm. mais loolu su amee nag waa Cees ci jàpp du woon man kese. waaw d' accord kon cinq pour cent yi mooy Assane ah. mais nag lépp moom la aussi dañ ko koy delloowaat ah. parce que confiance bi mu am ci mën a tax ma mën loolu ah. ba ci kanam ba nga xamante ni ubbi nga ba pare ñu doog a continuer doxale ba ci waxtaan bi léegi dootuma wax quatre vingt quinze pour cent cent pour cent Pambay te yaakaar naa téléspectateur dinañ ko nangu jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu wow na moom mënuñu lu dul kong rek wow na kong rek lañ ci teg jërëjëf Pambay nga ñu nga a nuyu ñëpp mbokk yi ci beneen champion wax naa leen ko sànq muy Clédor bu Cité Niakh sam beneen gan gi mom yaakar na tay xamna naa ni mbokk ersan yàkkamte ni degu kàddoom ak tundu commune bi yëpp motax tax ju leen yàkkamti baal ma njëkkee ci dor Ngor ma ngi lay nuyu yëkkatil micro bi. King Baba do, mhm. ak Vélam sama doomu ndey. Mhm. waaw di nuyu waa Thiès yëpp nag di nuyu waa Touba di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Dakar di nuyu waa Tamba bu baax a baax di nuyu waa Touba di nuyu waa Guinée Bissau ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci combat bi rek maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Dakar di nuyu waa Cité ñax gi mu fekk baax baax fekk ma fa di nuyu waa Manna nafaal di nuyu waa sama waa écrit yëpp leen nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom di leen ziare yéen ñëpp di leen nuyu bu baax a baax te la sant di la gërëm te da ngaa sedd wala qu'est-ce qu'il y a. tàng bi tey dafa sedd. keroog yaa eh, ngi fàtte bi mu daanee. bañ ñëwee booy la ma sànni daf maa tël maa caméra def ne poussé tey ñu ñëw fii ngay sedd. non demul demul demul ah <laughs> lu lu lu xew. ma daw mu dogali daw utali ko ne ko nga ñëw fii di sedd. non xam nga làmb làmb la. mais bu làmb jeexee tamit ñun ñëpp ay nit lañ waaw. di jégalu bu baax baax nag bi jégalu lépp lu jot a xew ci journée bi loo xam ne mooy loolu noonu parce que coow li bëri woon na trop wax dëgg yàlla. <laughs> ñu euh, sant ko wax ginnaaw bi nga xamante ne invitation bi ndeysaan am yaa ji fàq li ma métti mooy li Yaka sa ma ngi lay nuyu mon ami non lay jare mbokki ginaaw clé d'or ma jall ci pambe le grand champion de Ber mbër maa ngi lay nuyu di kontaan ci yow mais attends mais mbeur lug bi na day mais bi moy ban mais mbeur mbeur ma ngi lay nuyu doxalal sa sa micro mbër sa micro taaxul de xara ma xol micro da daa fàtte taax taaxal waxal ba di julli suni yanante bu baax di gërëm suñu ñaari wajur di nuyu wa Sénégal yëpp di nuyu wa kess kep rawati nak kati mo dekk muy r xam nga mbay ka di la nuyu ba di nuyu sama turando sama tomba Pambay xam nga di nuyu Kala dor di nuyu Ndof mu ma àndal sama grand nga xam ne làmb ji mu taxee fu nek fu nek fu nek ñoy and dam fa quoi deug yaal di nuyu saafu R100 mbooloo di nuyu wa kess gep di am contentement bu baaxa baaxa baax di nuyu sama dëkk Casamance xam nga wa Gambie wa Mbuur xam nga wa takar di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam bëgg baax a baax. hasard amul démbar hasard amul émission bi yàgg nañ ko bëgg mais mu mel ni tey la ko sunu borom dogal su ma juumul yaa ngi doog a dugg ci studio bi fii. non duggoon naa fi duggoon naa fi waaw waaw ah. lool man ak MC ñooy daje quoi. ndeysaan mais maa ngi yow ñu ngi doog a bokk jotaay fii ci bit rek lañ naan daje. waaw noonu la demee kon hasard amul. waaw noonu la demee waaw. ndeysaan tey la ko yàlla dogal la yàlla dogal te incha allah rabi day neex. wa merci ndam li ndamu kessa mais yow de da nga sedd kérok demé lo ni de kérok safara nga ndé sàdd sa tous bi rek man ja ma ci metti boy kérok mbeur oh té nga ñew sedd ni xaar ma ñew dina xam tay sama jinne ji lu mu capable mbokk yi tay non lañ ko défé sen émission la suñu mbeur bu ko défé dañu lañu jallé rek daali euh dugg ci li nga xamné tay mo ñu fa dajale pambay donc yalla def na ni dugg nañ ci bismi euh dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulilahi rabbil alamin Assane ndjay donc jël lepp jébal lako suma su pour la première fois mi ngi dogu a dugg ci lima ma bok man bu fekké ni mësna na dugg gu ko donc nga dimbali ma ci waaye mu don journée bu nga xamante donc mën nañ wax ni ah ñun bok ñun ñi nga xamante ñëwon nañ ci face à face ba ñëwon ci signature contrat ba ñëwon ci lamb ja donc liñ fa gis rafet na ci ñun rafet na euh, euh combat yi neexoon na machallah liñ da waral liñ faral di gis ci lamb yépp gis nañ ko. waaye it li ci gën a am solo rek mooy bëri nañ ko ci jàmm te amul violence jaas si jugul xeer jugul dara jugul kurpañ dara dàqantewul bëri bëri nañ ko ci jàmm génn ci jàmm ñëpp ñibbi pap tey boo ma doon defal benn bilan ci euh, journée bi nga xamante ne moom ngeen génn ak lan moo sabab tey Assane jël lépp teg ko sa loxo ba yàlla dogal tey nga jël lépp doxal ko ca na mu waree anam bu rafet na ma lay félicité ba pare. waaw mbay euh, vraiment tey damay am mbégte pour nga invité ma ba pare laaj bi nga ma laaj ci làmb mm-hmm. parce que defe naa ni man moom ku ma xam xam ne suma lépp làmb la. jox ko jox ko kii di wax. suma lépp ci làmb la. Mm-hmm. li may dox lépp li ci ëpp làmb laa koy dox. Mm-hmm. yàlla daf ma nattu su may rakk di bëre ak su may doom ah ma yàgg ci làmb trop doon ko fowe man ci sam bopp man ak dem si yàlla si Omar di ko. may ñaan ci yàlla suñu borom yàlla xaare ko àjjana. allahumma amiin man ak moom Matar Gueye di ñaanal aussi nen na jara tey làmbi Cees su demee ba ëgg si fii yàlla ak nen na jara ci la bokk. ci ñu ko suqaliwaat comme ni ko Baba Camara yi waxee. bi yatu làmb bi réeree ñoom ñoo ko doon wër ba indiwaat ko teg ko ci taabal ji mais nen na jara tamit vraiment moom it ci la bokkoon ah non seulement dama nekk ci làmb mais ma gis. Euh, le messie de promoteur comme ni ngeen koy waxee muy Sidi Diakhaté nekk kenn ci man wax dëgg yàlla di nit ku baax bëggul lu dul Thiès bëggul lu dul mbëri Thiès yi avancé mais ma xool ni aussi li nekk ci ay licenciés ci dëkk bi bari na. Mhm. Sidi yéeneem bu sañoon chaque jour dimanche bu jot mu tëgg mais ñu xool ni des fois di nga gis ab écrit. ah benn tête de file ba mooy sa micro cravate mi ngi ñëw jox ko micro bi waxal téye ko noonu. benn mhm. la ëpp ci yi di entraîné ba dem ba découragé booy xool ci biir Thiès ñenn ñi dem nañ ba bàyyi làmb. Mhm. à cause de ñàkk bëri moo tax ñu découragé ci làmb. dëgg la Baye Samba jóg doon rakk ci Sidi ah di nap na bi moom it pour bëgg a tëgg Serigne Cheikh Niang noonu. Mhm. ah ma xool Assane. moom it muy nit ku baax moo xool ci développé lamb rek. ñoo ko ci Pape Mbaye ma koy saluer au passage le grand promoteur Pape Mbaye waaw Pape Mbaye bu kaw sara waaw ma koy ku baax ah di xale bu yaru. Hmm. ah bi ma gisee loolu Assane aussi yàlla dogal mu nekk sama wóllëre comme ni ko ñeneen ak ñeneen parce des na ñeneen ñu dul Assane. Hmm. parce ku mel ni Abdoulahad Ndiaye. Hmm. tey jii li ma yëngu ci làmb di ko def mbay du hasard. Abdoulahad Ndiaye suma jarbaat la. te làmb bu taxaw Dakar. Mhm. mun naa la ne bu dee dix mun naa ne sept yee wala huit yee moom moo koy taxawal mhm. ci différents promoteurs nag loolu dafay am lu muy wundu suma jarbaat la parce que ma nag yaayam ñoo bokk bàyyi mhm. donc loolu muy def muy métier mu noble ma xool loolu donte que man kilifa laa ci moom sax mais wëlbati ko roy ko ci loolu moo tax ma man lii tey ba di ko def su si di jaxate di taxawal làmb woo ma ma ñëw di ko ci jàppale ah Assane bëgg a dugg ci biir dëkk bi woo ma laaj ma ma expliqué ko ni ko man de su ma sañoon nga ñëw fa jàppale xale yi parce que sii di moo fa ne te lépp mi ngi ko ciy daj lu ne ngi koy def ci dëkk bi mm-hmm. sañoon làmbi Thiès egg fi làmbi Dakar egg mm-hmm. te comme Thiès yaatu na mm-hmm. yeneen dëkk yi ko wër fii ba Jogo ba Mboro ba fut nekk am ay mbër am ay licence war bëri te sii di vraiment yéeneem ëpp loolu loolu mooy bu ma dem waxtaan ak Assane mu jël alalam jox ma néewuma lii ak laa def ma ni benn mbër de laa am muy booy jabaas bu ma bëgg mu bëree grand combat bi seetal ku mu war a mën a bëree mu bëree ak moom. Mhm. ma sama xel jàppul kenn ku dul Pape mbay parce que làmb ma intéressé. Mhm. li tax ma jàpp Pape Mbaye combat bi muy am depuis daaw la woon. Mhm. Alaaji Gaynde bëri na booba ba pare. fii te Samba Diaw combat taxaw moom ak arobase. booy jaxaw booy jaxaw am combat. laay goote laay goote bëri ak daa euh, daabu Texas. mais su fekkente ne làmb rek ka ma ñor. building bëree fi ak Alaaji man su fekkee làmb rek mu ma intéressé. mu indi fi ab promoteur dem jël ci mbër yi bëree woon ba pare bàyyi pambay doxatuma dëgg kon moom mi bëreegul te nekk champion comme ñoom mhm. ñoom ñu bokk benn catégorie guñ ne mhm. su ñee bëree te bëreewul kooku laa koy jox loolay sababu ma am yéene dem jël pambay waxtaan ak Pa Ahmed muy sama kilifa mhm. ma expliqué ko mu d'accordal ma ko mu doon loo xam ne jafewul benn yoon vraiment ñu taxaw ci taxawaay bu rafet aussi ah ñu liggéey ci liñ ci war a liggéey ba yàlla dogal combat bi am ci jàmm ba réussite am ci kon may sant mboolem ku nga xamante ni rek jàppoon nga ci bis bi également muy pape mi ci boppam ak ménageur am di Pa Ahmed ak mboolem ko nga xamante ni rek participé ci bis bi noonu daal mooy sababu li nga xamante ni moo tax Assane ñëw fi mm-hmm. keroog journée bi ñu gis ci lu rafet euh, ñu gis ci lu rafet jërëjëf parce que euh, loolu la ñuy wax rek Assane Ndiaye bu fi duggee c'est grâce à loolu lañ ko wax mm-hmm. donc dañ lay ciy félicité di la wax ni euh, ñun ñëpp nga ko defal mooy li nga wax rek ca idée bu positif bi nga am ba daal di xalaat loolu parce que bu la neexoon itam donc nga dàq yóbbale ko feneen ne ko nañ dem feneen tamit ak loo boobaay dala koy nangul parce que sekk ngeen ko waaye dañ na bay say wayu tànk nga gis lu jaadu na ci diggante Pape Mbaye bi nga xamante ne amateur yi ñuy bëgg di gis ay combat am mm-hmm. ay supporter am nam moon ko lool ñeneen ak ñeneen loo wax ñun la Pape Mbaye mu wax naa ko sànq muy mbëri ëpp coow ci diwaanu Thiès mm-hmm. donc kon boo defee Eh, eh, jangan bawa nah anu ba gis ni ay moroom bëri nañ te moom bëréew ba gën naa bëri donc boo ko jëlee andi ko kon loolu dañuy wax ni lu rafet la tuy dañ la ciy félicité bu baax a baax keroog ñu gis ci jour làmb ji aussi ku ko xool ci wàllu organisation gis naa fa lu nga xamante ni tey keroog kenn merul parce que organisation bi jaaru na yoon lu ñu ci mën a xam ku nekk teg nañ la fañ la war a ku ci nekk bañ la jox jox nañ la ko ci te gën te ma te gën dugg ma gën apprécier muy sa portier yi nga xamante teg nañ ci dama koy wax wax naa leen ko keroog nee naa leen ko lii su ma toogee naa ko wax Pambay parce que gis naa ñu def fa taxawaay bu nga xamante ne mm-hmm. tey gëm naa ni ay conseil yoo xam ne dañ leen koo jox ngir ñu exécuté ko parce que na keroog ba ñu ñëwee xàmmeewu ñu ma Samba xàmmeewu ñu ma Demba làmb ji amul benn cambar cambar ñun ñi pour couvrir làmb ji sax duñ ñu may lu toll tarfatal ay ni ko nga dem loolu aussi a li ci félicité te lépp yow ñi nga xamante ñoom ñooy organisateurs yi ci wàllu organisation Pambay keroog mu mel ni keroog ka fay làmb ji nalaw waaw veille làmb ji nelawuñu mais nag ñu bokk ko ak waa Thiès aussi comme ni ma koy waxee toujours vraiment seetaanuñ ma aussi ci organisation bi ak commençant par serge de lutte mhm. ku mel ni Mamadou Seck ah vraiment suma rakk la dinaa ko waxaat bépp ndombal tànk tey su ma ko doon lim mun naa commencé ba mu mat une dizaine yoo nga xamante ni ci làmb laa ko am te lépp su amee mun naa wax ni yàlla ak Mamadou la ah rakkam Ousseynou mhm. Amadou Diouf suma doom stade ba la ñu fanaan amul organisateur lu ma yëkkati ñu ni ma bàyyil ba ci alaaj yuusu Lamine préparel ma bu njëkk bi maa ngi ñëw ceew bu njëkk bi laata may ñëw ci mbër demal dëgg la vraiment mu doon organisation boo xam ne jafewul ci man hmm. parce que Baye Samba bi nga xamante ni mooy promoteur nekk ci dëkk bi jóg gëj jóge fi bu yàggul lépp lu jëm ci wàllu organisation lu ma war a def daf mën a jaaral fii lii laa defoon indi ko fi demal jëli lii hmm. amul lu jafe ci man amul lu ma ci def loo xamante ne du ay nit a ñëw jàppale ma ci ànd koog man defar ko. Hmm. vraiment organisation bi awma ci benn jafe-jafe ndax waa Thiès yëgoon nañ ni li nga xam ne moom laa doon ji làmb daal kere bi ma xew xewle wax dëgg yàlla fay nañ ma ko. Hmm. sincèrement ba xam naa ne daal lépp lu nit di def ci àdduna daal bay boo nga fexee di def lu baax. ngir bis boo ko soxlaa nit ñi bu ñëwee fay la ko bu boobaa doo am la nag. en tout cas gis nañ ay combat spécial tamit yu neex gis nañ itam ay combat préliminaire yu neex mbokk yi keroog li ma leen waxoon amateur yi ñepp a kontaan kenn merul ndax combat yi nga xamantene nekkon ay combat gladiateur mu am rag, rag ban naw ay rag ban naw la fa gis kérok gis na fa mbër yu rag ban naw mbeur yu rag ban naw ci jaw yi mbeur yu rag ba jël seen bop yi sol ci souf si lepp gis na ko gis fa tous bi nak non tous bi benen affaire la mais loolu dinañ ci ñew mbokk yi dañuy tek foofu suñu baram ginnaw pambe li nga xamni ne nuko ñu ko delu wat ci ginnaw dugg hippodrome jaw mako du job ma proposer ma xol sama jinne ji lan la may proposer Lamine loo ma jox ma jël jox ma ñu xool ban combat nga ñuy jox nañ dem. mbokk yi damay teg fa sama baaraam ak sama caméraman du jour ma ànd ak yéen comme d'habitude ñu dem ci biir géew gi suñu paree jël temps fort yi baaxee leen ko yéen téléspectateur yu Thiès TV topp ma ñu dem kaay kaay kaay kaay kaay kaay. nekk troisième combat spécial Boy Séeréer bu Tivaouane ak Clédor bu Cité Ñax di waree écurie bëgg sa waajur arbitre bi consulté na ay juge am bi sif na Clédor moo ñu woon kanam Boy Séeréer moo ñu woon ginnaaw nee na ba xam yaa ngi may gis <laughs> ça me rappelle Balla Gaye Tapha ci suuf si tàccu nee na ko taxawal ñu bëri bokk ci mbër yi gën a naqaree utal adversaire ci Thiès maa la wax loolu Ami ndax dafa mbapat kele door foo wàccee ci mbapat da nga koy gis mbapat li simple sama yëf barki de moo Ndiaye moo gagné mbapatu sekk ndaanaan Alaaji Moustapha Ndiaye ca terrain Baye Mass Diwaanu Marina Fall mi ngi nii xale baa ngi nii keroog fils de Samba Diawara Bass moo jël ndëndam samp ci digg géew gi ne xanaa stade bi amul góor waaye tey wenn waaye ngi nii nee na man maay bi abib bi génn na seen diggante kele door Boy Séeréer. waaw Clédor Boy Séeréer ñu ngay léewtoo ndeysaan Clédor nga xam ne bëreekat la ndaanaan la nekk ci lutte simple nee naan lutte simple boo ci nekkee dara du la jaaxal dafa def indi li nga xam ne mooy cumbukaayam ma ne kii mbëru lutte simple la ndeysaan Boy Séeréer moo ngi noonu taxaw waaye soo gisee lamb ji nga xam ne ñoom ñaar am nañ am nañ différence poids tuuti. waaye demee wu sànq maa ngi lay wax ni Clédor dafa naqari wutal adversaire. poids bi ci la bokk Ami laa lay wax noonu. dañoo xawa am différence poids touti waye nee la doole doxul jàmm soo gisee dor nga xamne poids bi baxna waye ki mbeur la tamit soko ko gisee nga xamne mbeur la yaram bi baxna yaram mbeur la yore. dafa melni ni dor dafa bëgg jéxal lamb ji ji dor kan moko andi ñu ni Baye jaaji do Doking Baba kan moko andi ñom gor gi kan moko andi wa Siré Niakh dor kan la lol boy séeréer ko wax boy séeréer wax sa doomu ndey Abdou Gamay job ko wax boy séeréer wax Mbisaan jone ko wax boy séeréer wax fallu Kalando ku wax booy séeréer wax caatu ama ku wax booy séeréer wax kër baaba kër baakar tundu Tiwaawan mi yëpp ñaari xale yaa ngay léewatoo Clédor wàcc na jiital càmm tànku ndeyjoor booy séeréer wàcc na jiital tànku càmmoñ ñoom ñaar ñoo ngay léewtoo nee naa la bul booy séeréer ku ko indi lambaloog la kooku mooy Abdou Gamay Diop dëkk kër Baba Alima kenn du moom ci Abdou Gomaay moomu ma ngi koy nuyu au waaye Clédor mu ngay mépp taxaw di déglu xool leen Clédor soo ko gisee nga xam ne lamb ji la gën a bëgg mbabat bi la gën a bëgg su ko sañoon moom lay imposé ma ngi koy topp ki nga xam ne booy séeréer di dellu ginnaaw mu di ko topp mu ngay dem ndax xeex day am ci làmb ji déet wala waaw waaye lamb ji du lamb xeex. sama ginnaaw yor benn butéel dégg rek doomu ndey Misaan Dione doomu ndey Aline Mbaye Nder doomu ndey Mbul. Woi, doomu day caatu ama ak borom kër Ali Alima Abdou Gamay job ñoo ñoko dar tay gunge si ko fi nga xamantene tay moy mooy hippodrome El Hadj Ndiaw du job muy le Clédor bu Cité Niakh wax naa ne ko sank Baye jaaji wax naa ne ko sank yëm gor gi ci Cité tay kenn desul kenn du neew ngir gunge sen mbeur tay Clédor cokkaas Boy booy da bëgg dem Clédor tank ba soxla tank bi soxla. Clédor tànk bi la soxla Boy Séeréer dégg Clédor tànk bi la soxla Clédor Boy Séeréer ma dañoo bëgg a jeexal combat Boy Séeréer a ngi dem ci kawam eh ña ngay temporiser Boy Séeréer temporiser na Boy Séeréer temporiser na ñi ngay léewatoo Boy Séeréer Clédor Boy Séeréer Kerajaan pun Nyari beri yang lewat tu. Nyari beri yang lewat tu. Citi gente kerajaan pun bagi sahajur. Khalif sitan nyakbi. Jita netang kundai jawab. Boy warai Ware cuawan. Jita cang kucamu. Nyari beri yang lewat tu. Dengan apa bagas kena? Wakal wakil dengan apa bagas? Dengan apa bagas? Turbo Karaane mi ngi nekk sama ginnaaw di yor benn butéel di ko yëngal waaye Clédor kenn ci gaay mi ma nga yor nekk côté bële yor moom di yëngal moo tax ma dañoo bokki bagage sami collègue. la kee di wax la kële di wax dir booba ngay kaf di wax fee ragal la kii naan ko tàmpet la ñu ngay xeex eh Boy Séeréer nga koy empêché xeexul. attention kee door Boy Séeréer jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu kee door Boy Séeréer da ngay xeex da ngay xeex jël na tëgg bi kee door jël na tëgg bi kee door jël na tëgg bi takk na ko takk na ko war na ko ndombo kee door kee door Clédor daan na Boy Séeréer Clédor daan na ko Clédor daan na ko Clédor daan na Boy Séeréer Clédor daan na Boy Séeréer Lamin eh, sunu réalisateur bi nekkon ci kaw ñu jaajeufal ko bu baax baax jërëjëf itam lamin Pro donc ñu contane len bu baaxa baax loolu moy li nga xamante mom mo nekkon 3e combat spécial journée ki nga xamante ndaysan mom moy mooy euh, production ñom Pambe mi nekk ci Assane ndjay mbeur sa rang lamb ji lo wax tay lo ñu mëna wax tay ci combat bi saa japp nga ko daan nga ko mais man damay def sama analyse bala bala bala may ñew parce que benn moment gis naa ngeen xeex xeex boo xamante ne du xeexu dara yéen ñaar ñëpp seen xeex bu dara baaxul xeexu mbedd waaw des na lu bëree bëri xeexu mbedd xam naa ne ko jóg ëppoon patience rek mën nga touché sa waay kii ko mais yooyu mook làmb ñoo am mook làmb ñoo moom daw na jël sa tànk bëgg la plaqué nga daw dindi loolu taxawu daw takk ko ceinture ko wër ko ndombo daal di koy dóor daan ko ci suuf tey lan nga ñu mën a wax tey ci combat bi combat bi tey

combat yi tax ma jël ko ñi nekk fii ci mbëri di nekk fii ci ay mbër nekk nekk ak man ay naataango nanguwuñu moo jël loolu moo tax ma obligé jël ko waaw di ko sant bu baax a baax di ko nuyu nag moom bu baax a baax waaw di nuyu waate waaw dama laa gis euh, journée Sidi Diakhaté bi fii sa sama yow arabas bi ñu def présentation grand combat bi nga jël seen dënd sumeeku xëppoo suuf ñëw samp dënd li ci digg géew bi taxaw def nii say loxo loo ci jubloon grand combat bi nga da nga doon bëgg gars waaw parce que man ñooñ ñooy samay morom boo xoolee ñooñ ñooy samay morom. Hmm. waaw. fekk lambu lambu Thiès moo demee noonu dafa bëri ay moytuwante. Hmm. waaw mais fii bu ñu xoolee rek te wax dëgg kenn rawul kenn. bii mooy sa ñaata combat fii fii bu ñuy xool fii mbër bu mag. bii mooy sa ñaata combat ca bii mooy sama deuxième combat ren. sa deuxième combat. ñu doon bëri grand combat bi ñun toll nañ ci neuf waaw <laughs> loolu loolu loolu hmm. loolu dara. kon ñoom nga soxla dëgg dëgg wala da nga bëggoon gaay jël la après la moo tax nga xam nga lamb xam nga lamb lan la ñun xamante nañ bu baax a baax ñun góor yàlla yi génn tafe ci àll bi xamante nañ hmm. xamante nañ bu baax a baax fii boo fi takkee sa ngeen sa ngeen bu génn ci àll bi ay benn benn mbër nga fay Mm-hmm. dugg ci àll bi bu làmb joo jeexee nga dem jeneen làmb mm-hmm. yaa may dégg góor yàlla yi foo leen nekk mais lii dafa yomb waaw kon nag am na benn benn nag ñoo xam da ngay tase ak ñoom ci àll bi ñoom ñoo la xam mm-hmm. waaw mais ñooñu noonu dañoo war a ñëw ñu bëri mais lan moo tax yu wutal adversaire daal di jafe yow gars sa poids bi la yi dañ la ñemewul wala lan la booy séeréer kooku Pambay dina ma wax muy taxal combat bi fan la jaar ba xam négociation bi guddoon na discussion yi guddoon na am déet yow lan moo tax véritablement nga daal di jël booy séeréer lan nga gis ci mom ba tax nga jël ko nga japp ni yako man mo nga jël ko nga japp ni te boy séré ko xam-xam ni dafa min géew ya gëna bari suma ma bon bokku na ci mbër nga xamantene ne donc palmarès yu rafet lañu am macha allah waaye nag toogoon nañ benn moment gëjoon ni ko gis ci lamb ji tay nga dem jël ko ñu alé ko mo rey wa ñew ci lan moo tax nga jël ko. non boy sér bo xolé jëluma ko mo mo ma jël parce que dama dem lamb tous parce que nak yàgg naa def loolu dama koy sant bu baax yàgg naa dem lamb tous sampu sama dañu te du ko laal hmm. man dama koy sante ci lol no loolu mu def noonu di ko ci sant bu baax a baax parce que bu tonoog moom man jàpp naa ne dinaa def année balance di nuyu di sant Pape Mbaye bi bu baax a baax dox na ci ay jéego yu am solo waaw damaa dem làmb tuus samp sama ndënd samp sama ndënd dem ba jël ndënd li génn dem ba ñëw taxaw sama gaay yi di waxtaan fàtte ko sax mu doog a ñëw tàllal ay loxoom man damaa jékki-jékki gestu rek gis kuy tàllal. teel nga loolu sama jum lamb bi mujj am course ba kana kana ko doon fii sa Samba Diawar Baas waaw après moom moo ñëw fëgg dani na fekk fàtte naa loolu moom moo ñëw taxaw tàllal may lox damaa jógee gis ku sol benn yére ñëw taxaw maan waa maan gaay kii kan la bàyyi ma xel tax ci moom parce que man sama bët hmm. wax dëgg nag teguma ko woon ci moom waaw lamb moo demee noonu rek mais sama bët man li ma li ma entraîné man xam naa ko hmm. waaw mbëri mbëri lamb Thiès boo gisee wutal ma adversaire jafee daf Thiès te ñun ñoo mëna a xaaliss xaalis suñu biir kon nak na ñëw ñu bëré lan mo tax lé kérok di nga bëré kan mo la ko jox stratégie bobu gaay ñoo la bëré ni ñom Ousseynou Seck ñoo la ko wax ñom ñom ay dara Karara wala pamba yi mo du mëna sax pamba yi solu casquette boobu. aywa ah, wala yow ya dem ak sa xelu bopp. aywa ah, xam nga. commentel ma làmb ji commentel ma làmb ji. aywa ah, xam nga lépp xam nga lépp dalal ma làmb ji bu commentel ma nan nga ko def noo ko def nan nga bëré lool ku la ko jox. kan mo la jox clé bi wala yow ya dem ak sa xélu bobu man champion yi ma wër bo né ay dara Karara rek doyna doy na ne ci Matar Mbaye ambulance laa bokk Matar Mbaye ambulance. Ah. doy na ne ci Alaaji Gaynde Gaynde. Ah. ne ci cere càq laa jóge. ci cere càq barki Demba Ndiaye di ko oh. nuyu baax gis nga la mu fa def. ma koy saluer au passage. jël bi ra nga rafet ci lambut. Ah. ci lambut Sénégal moom moo ko fi daal. commentel ma lamb ji lamb jaa ngi noonu commentel ma lamb ji nu ngeen def no waaw lamb ji yaa ngi nii. Hmm. arbitre dafa soufflé ma taxaw déglu ko parce que signature bi dama ne ko yow. Hmm. ñi ma xeex ak man li ma entraîné ci xeex man su ma neexoon boo sëree dama koy dóor mu daanu man loolu su ma neexoon loolu ci man la rek. Hmm. mais tamit làmb moo demee noonu. waaw bis de bis bi dañ koo jox ci respecté ko. Hmm. yaa ngi dégg ki la kii wax léegi Pambay li mu la wax léegi. Hmm. li ma entraîné ci ay dara karara génn mënoo génne mbër bu ko daa xeex Thiès. ñoom ñoo ñu yor. waaw jàngal ñu xeex xeex bu tege ci yoon. mais tamit bëgg combat bi gaaw moo tax ma def nii. ñëw jàpp ko. tegal ko Thiès daan ko. waaw booy séeréer làmba ñu boole rek mais wuñ sax wax deug yalla nak bo xolé moy loolu nonu waaw combat bi sax rut naa man ci yenn ki combat bi du combat ñi nga xamné man man ñom lay sumé ko ndol ñol dinañ ci ñew mu rafet tegal fofu sa loxo dinañ ci ñew Pambay euh, euh, digënté boy séeréer ak ki nga xamantene moy mooy Clédor mi fi tok no def ba décrocher affiche bi lan lan mo la inspiré ba nga jël ko néna dafa samp ndëndëm boy séeréer ñew tël ko non la ko mëna waxé no def ba taxal combat bi quelques semaines après lool xew waaw combat boy séeréer ak euh, ki nga xam mooy Clédor mm-hmm. doon ciblu sax combat bi ci journée bi mm-hmm. waru ci woon bokk maa ngi taxawaloon Babylone ak malik Niang mm-hmm. Babylone Malick Niang moo yàqu euh, vraiment ma gis Clédor mu nekk ci écrit bi aussi te asan bi muy ñëw Thiès ngay bëriloo champion bu mel ni Pambay grand combat vraiment war nga ko toftalal ay mbër yu mag ci ginnaawam ñu bootu ci ginnaaw Pape Mbaye aussi mais jël Pape Mbaye muy bëree grand combat bi nga jël ay mbër yoo xam ne kenn xamul leen aussi ñu ciy bëree loolu nekkul woon loo xam ni Assane bëgg na ko non seulement man mi taxawul aussi bëgguma ko bi Malick ñaa Babylone yàqoo Clédor euh, ma gis ko mu ñëw ci làmb toujours di ut ay adversaire mënu ko am mm. booy séeréer aussi noonu parce que buñ fàtte ni ki nga daan champion bu mag la six combats la def ci arène ñaari défaite la ci am six combats de défaites quatre victoires nga def deux combats am deux victoires donc ki nga daan champion la saluer ko nga ñaanal ko yàlla parce que ki nga daan mbër mu mag la daan mbër mu mag sax mooy tax yow sa victoire bi nit ñi mën la yóbbu feneen mais soo ko sous-estimé mel ni ki nga daan du mbër day mel ni victoire bi nga am lu dara donc de leen réel ki nga xam ne da nga ko daan day ko yëkkati parce que mbër mu mag la moom moo wàcce boppam pour jël la parce que mënoon na ni xamu la mais bi demee seeti ko si na bëri ah bëgg na bokkaat ci làmb mu ñëw yàlla dogal nga am ndam ci kawam ma koy ñaanal ndam la jibla bu ëllëgee moom it su amee combat bëri mais mbër mi nga daan jàppal ni champion bu mag nga daan. mais loolu laa la wax. waaw moo la mën a yóbbu mais da nga ni sama digganteeg moom. du lamb dama la. d' accord gëmal ni li nga entraîné rek d' accord am nga doole. mais champion la moom sant naa ko bu baax a baax. waaw mais champion parce ma jël dama koy sant. noonu ñu la doon moytoo noonu lañ doon moytoo booy séeréer. Mm-hmm. taxawal naa fi ay combat ña ko jox dañoo delloo avancement. du benn yoon du ñaar yoon kon mm-hmm. daje ngeen rek lañ koy ñaanal kaddu suñu écurie bu amee combat te du suñu écurie yàlla may ko ndam waaw xam nga séeréer bu amaatee combat te du suñu hmm. yàlla na ko yàlla may ndam waaw xam nga nag ñun daanaka dañoo universel actuellement donc <laughs> euh, loolu mooy sport yaag booy séeréer yéen bokk ndey bokk baay itam yaa ko wax sànq nest sa sa sa sa njalbeenu kàddu hmm. nga ni yeneen mayante xaalis hmm. donc yàgg nga teg seen dënd mbër bi ñu duñ la xool gars yi jaar na léegi ñu naan lu xew mom bu nango ñew ñe c'est parce que yene na la terang motax mu jël kon ñaanal ko nga encourager ko donc ñu féliciter le Sénégal jëm karam nga amat combat mu amat combat làmm ji dox yeen ñep ngeen doxle fofu la Pambay di waxe lolu moy aduna c'est le Sénégal ci gañ mbokki damay ñëwaat ba tey delluwaat ci régie ba xoolewaat jinni ji ma xol lan nga may jox soo ma ci joy ma dogu a ñu ñu dellusiwaat fi fi le lepp di yaato ñu dogu a jema xol naka lañu démé ci leen virage Lamine top ma ñu dem nañ dem. ñu amal ñuko ñi dag ay stage xalé yi di indi ay violence ci ginnaaw di dorante di saga sa mak di saga ko xamne du sa morom c'est trop lamb bu ñëk da daan boole lamb daanu loon xàjjale bu ñëk suñu maam yi dañ doon sangu ba set sol seen yére dem li nga xamne moy lamb ja top bu ku daanu dem and ak sa komb sa ki nga rab mu dégg mu ñël arbitre bi sifflé né deuxième round bi Ami Collé. li nga xamne moy deuxième round. Pambay Boy Diobass Ami Collé le message est clair li nga wax kenn du ko dindi. sport pour violence amu fi place. amu fi place. sport day boole. rawatina nag làmb nga xam ne dañoo weex dunk. rawatina li lu jug ñu ne làmb. lii mooy làmb tey woykat yi dañ naan wax naan dañ naan solo ba jekk bu ngoon jotee nga dem làmb ja seetaani ji boo paree ku nekk dem. amateur dafa am ak supporter am na ñoo xam ne nag ay supporter lañ duñu amateur amateur mooy ki nga xam ne day dagg la biem dem toog rien que pour seetaan làmb supporter mën nañ koo gëm mais na nga supporter ci anam boo xam ne dafa rafet supporter ci anam boo xam ne mooy discipline waaye nekk ci ginnaaw indi bur xeex amul njëriñ police yi dóor la wala ñu yóbbu la amul njëriñ loolu amul njëriñ nañ leen ko rafetal ñaar ñii bu ñu paree ñoom ñooy bëri ñoo jot seen xaalis ñii ci ginnaaw seen yoon nekku ci na rafet li nga xam ne mooy papa ji le message est clair ami collègue ñaar ñaar damay faral di wax ni mbër amul problème bu desoon ci mbër rek violence du am ca stade ça il faut le dire. nee naa la dem ci signature contrat ki a xam ne moom mooy tafatin bu bawol ak ki nga xam ne mooy booy ñaa ñu toj ay oto yu bari yàq fa lu bari loolu amul njëriñ ana discipline ana yar gi. attention eh! attention lu xew daan na ko Pambay daan na ko Pambay daan na ko Pambay daan na ko Pambay daan na ko Boy Diobass Pambay daan na Boy Diobass Pambay daan na ko Pambay daan na Boy Diobass yi gis ngeen li ngeen xamante ni moom moo xewoon fii ci hippodrome El Hadj Diaw Macodou jaajëfal ko bu baax a baax loolu mooy euh, li xewoon ca hippodrome. boy jabas bu jabas mbokki lol mo nekkon grand combat bi pap may mi tok suma wet mom mo jël première édition drapeau Talla Sylla maire de la ville de Thiès ñu félicité wat Pape bu baaxa baax di ñaanal ndam li yalla nako ko ji di encourager boy jabas di ko ñaanal mu gëna défar wat di wax ni lamb ni la da ngay daanu ngir mëna xam say défaut bu ëllëgé nga mën ci sukkandiku xam fi ngay tek sa défar wat ñu ngi koy encourager bu baaxa baax di encourage tundu jobaas gep nga xamanteni kérok ñom ñep dañu faq ñew ma màbb gu ngi seen doom fi ci ties ñu encourage ko bu baaxa baax mbër combat baa ngi noonu yàlla may na la ndam lamb ji metti won na lamb ji metti won na lamb ji metti won na ci fand bo laal alhamdullilah tay ñu tok fi tay lo mëna wax tay sa digënté ak bo Diobass ak la nga xamanteni kérok mo xewé xewee stade Bambey. waaw làmb ji metti woon na mais dañuy sant yàlla bu baax mbiru làmb yi làmb lañ yaakaar kon nag lu fi jotoon jaar métti woon na amateur yi métti woon eh, namon nañu waaye ñu ñoo gën a suñu bopp ba dëgg yàlla ku fi xam-xam ni corona bi passé woon na fi laata corona bi nag ñooy woon suñu combat ak Boy Diakhao Boy Diakhao def lu fi nekk kees maa ngi koy bu baax baax baax si combat bu mu jógee xam nga wax dëgg yàlla ñu ay doomu tamit euh, ñi jógee fofu noonu ma duggu si lamb ci ci mbabat bi bobu tay ma ngi compétir corona bi ñew taxawal ñu yalla def avant corona bi Assane jaay mo ngi doon dox sama combat ak yeneen promoteur te yalla di nuyu waale Abdoulahat jaay bu baax baax di nuyu suñu père Maxime bargan xam nga di nuyu wa town xam nga ñi bëgg lamb fofu ñep ñep ñoy ni nuyu bu baax baax di nuyu tamit wa caisse xam nga di nuyu sama éclaire sans mbooloo bu baakha a baax a baax. balaa ñuy ñëw ci combat bi noo def ba jël combat bi bi la Pape Mbaye Sarr nu ngeen def lan mo la motivé ba nga jël Boy Jabaas xamoon nga nga jël la xamoo ko. waaw boy xol Boy Jabaas avant corona bi sax ñoy doon wax sama combat ak moom quoi ñoy doon wax tamit sama yenen combat mais lambara rek dafa ñew waxtaan ak sama. manager manager ba amet ñong koy nuyu bu baax du nuyu domam yëpp xam nga amul problème mané ko lamb la. comme te moom champion la dem na nekk na Dakar def fa lu mu war a def ñëw Cees tamit def lu mu war a def ñu nekk ay xale di bëri dañuy tàncante rek mais boo xool moom xam ma ko dëgg yàlla champion la ñoo ngi koy ñaanal jàmm di ko wax xam ma defet bi yàlla na ko jég ñu continuer suñu laa dem xam ne ngeen ñëw ba jouru làmb ji abi génn seen diggante ersan gi yëpp mab ñëw topp la Daaru Salaam naka noonu commune bi yëpp kenn desul Cees ñëpp ñëw seetaan si la gaa yi yaakaar ne pambay bu ñëwee na mu daan def xeet noonu lay demee bëree taf taf taf làmb ji gaaw mu jeex ñu ñëw nga làmb pap affaire bi mel ni lu dëgër nga làmbaat mu mel ni lu xaw dëgër mooy wane ne booy jobaas ak loo ko mën a waxal rek champion la parce que tey bu woon champion làmb jur àgg fu mu àgg pambay waaw moom laa la wax xam nga tey booy jaxaaw champion la tamit champion lay bëreel waaw

motale sa lépp parce que booy xool roi des arènes mësul dugg biir kees te sunu borom may nañu qualité yëpp tamit danoo ànd ay mag yoo xam ne yu yàgg a topp làmb yu yàgg tund làmb xam làmb bu baax a baax a baax nekk sama ginnaaw tamit buñ demee ba toll si bis bii nii ba dëgg yàlla pamba yi ñëw indi combat bi mënoon kaa jaarale feneen ñëw jox ñu ko xam nga dañ siy sant yàlla def si fulaak fayda ak jom di wax waa kees rek comme sunu vision rek. mooy lépp lu nu bëgg rek mooy jëli roi bi Dakar incha allah indi ko. loolu mooy sa objectif sa diggante ak Boy Diobass ci la ñuy ñëwaat keroog ngeen bëri defe naa benn round ci deuxième round bi donc ci la jël bi doog a am ci biir premier round bu nekk xew na ci su ma juumul ñamante ngeen dem nga Ardo ñëwaat keroog Ardo ñëwul ndeysaan docteur Abdou Diop moo ñëwoon ma koy saluer au passage bu baax a baax. ndeysaan démb rek ñoo nekkoon macha allah tey bokk tey rek ñoo nekkoon ma koy jaajëfal bu baax a baax nga dem ardu ñëwaat andi beneen facette ñu ah. dem tuuti am yu xew ci làmb ji jarul ma ci jaaraat <laughs> làmb ji jaxasoo yàlla may la ndam ci kawam di kaan wax naa la <laughs> wax naa la wax naa la yow man xam su ma bërëwul sax su ma déggee isaad isaad day yëngu yow xam nga loolu loolu dafa leer daanaan ngi hmm? man su ma bëriwul su may signature day neex. Ah. su may bëri day neex su ma ñëwee stade wala baaxu si day neex. Ah. te incha allah wala. mais que sa gars yi duñ def booy bi sa gars yi duñ def booy a ñëw stade. ma ni ma sa booy keroog la lañ def stade ci biir jàppante yéen ñaar am na lu ñu fa def de am lu fa xew. <laughs> non xam nga booy moom. ah xam nga damay nuyu. bi ñu defee loolu bi ak boobu amee après ci la liy xew loolu xew. waaw làmb la rek xam naa ni seen seen seen seen kii. Hmm. maanaam seen seen seen bëgg moo tolloon foofu seen xër quoi. waaw seen xër moo tolloon foofu noonu waaw ku xam Pambaay moom xam ko xam si lépp lay jom ak fit ak jàmbaar. wax dëgg yàlla te làmb jooj sunu làmb la. mais gars yi nee nañ keroog sa gars yi ci biir ñoo ko lijjanti de affaire yi moom dañ ko lijjanti nañ ko ak doole <laughs> parce que boo jawaas mii ñëw moom. ndam la andaale. xaw ma nag après lan moo xew. mais après am na jaxasoo am na man man soo ma gisee <laughs> soo ma gisee xam ni tamit ndam laa indaale Mbaye Babacar. parce que mooy lu ma lay wax rek.

ñoom amaana seen xel loolu leen joxoon man sama xel lu ma lu ma joxoon mooy si biir bi appliqué lu ma bëgg a mais après ci benn moment seen jàppante bi seen jàppante bi laa ma ji demee tuuti amoo ay doute ci moom quoi commencé di am ay doute affaire yooyu daru la benn yoon ci biir géew. billaahi wallaahi taalaahi. loolu tax laa ma ji xaw a duré te yow say combat taf taf nga dem à part booy jaxaw nga xam ne xaw ngeen a bëri lu xaw a yàgg. waaw booy jaxaw boo xool bu ñu bëri noonu laa ma na coow.

ñoom Baye ñoom Baye Coro waa Kees tamit mhm. ñoom Baye ñoo la ñoo euh, nga demee noonu wala keroog yaa dem ak sa xelu bopp wala nu mu demee noonu. waaw ñun Baye Coro rek nga gis mais am na ñu bari ñu nekk moo xam ne si ginnaaw. ñu waaw dama ko cité rek nga xam naa ne moom moom sa lépp la ma koy sali passage. dañ koy bu baax a baax a baax. wax dëgg yàlla ku sonn si combat bi. Mhm. teel micro bi. Mm. xam nga ak waa garage kees. di nga ñëw ci ñooñu. waa di waxal ci làmb nañ ci wax. keroog nga ñëw tuus lu doy waar tamit. waaw mais tuus ngéwal. <laughs> ba lu ma lay wax rek. Ah. ay xalalan te dañoo am vision si làmb. ñun dañoo am vision si làmb te ñoo ngi koy dooleel waa kees pour ñu gën ñoo yokk jàppale. Mm. parce que tey kees amuñu luñ fiy amatul luñ fiy turbe. Mm. ñu ñu war a bëreel ñëpp bëreel nañ ko. Goro Jam moo ngi dugg fii nii xam ne di def ay affaire yoo xam ne mooy loolu di ko waxaat rek ñun ay xale lañ jam nekk si làmb si. jam jam ceeri jam ceeri jam ceeri un bi wala deux bi ki nga daanoon. non deux bi laa daan. deux bi nga daan. mu des un bi mu des te ku ma si jëlul laa la wax de ku ma si jëlul. <laughs> ah nga topp si gannaaw bëgg loolu dinañ ci ñëw keroog ñu ñëw ci biir làmb ji pàmba yi benn moment. ndeysaan euh, ñu gis ci ay mbir yu doy waar mbir yu yéeme ah, mbir yu sax parce que làmb la non dañ ko nangul nat loolu mom reality, mom c'est la réalité donc leppam mbëri la donc pambay bu sumé ko taxaw ci géew kenn du lacc ani mbeur mi pambay loolu yakarna euh, amateur yi xamnañ ko ñi dund la xamnañ ko pamba yi bu jógee stade gars yi xam ne am na lu dugg si donc loolu loolu mooy li am loolu mooy li am mais euh, ñu gis ni pamba yi keroog euh, yàgg sa gars yi donc euh, am na ay affaires yu bëri bugguma sax di ci jaaraat bugguma sax di ci jaaraat da ngaa xaw a doy waar na bëri da ngaa xaw a doy waar trop loolu tax nga doy waar la mooy sa problème da nga ko waar quoi yow da nga bëri ay affaires yoo xamante ne nii daal mooy loolu daal di duubaale sama maaw mafia bi ah. non yeggaguñ ci da nga doy waar waxal ci Aliou Kale ji baax baax ah. dëgg. naa la booy bi waa sa euh, booy Jobaas li ñu ko wax ci signature a à face bi ay xolu nekk ñëw foofu ruubee foofu andi say problème xam nga kii daf maa tël mais yow ay gaalaaj nga ma sotti. xam nga xam nga xam nga dafa dem si beneen level. làmb dafa dem si ah. a signature bu ñu ñëwee ñu hmm. dafa ñëw pour ñu jaay làmb ji te làmb xam nga làmb nekkul da ngay ñëw làmb rek nga tekki tekkaaral boo jawaas bu xoolee moom mu jël suuf sax parce que way tekki ji jug bu way mu jug ji douze xam mu ñëw indi affaire dara lool lool mais su toogoon rek dañ koy neexal ba mu waa kees ñëpp génn comme nun génn tey yàlla xam noo ko daanee Lamine daaneel ma combat bi nan nga daanee Boy Diobass keroog Lamine indil ma combat bi commentel ma combat bi nan nga ko daanee keroog noo ko daanee. waaw Boy booy xool danoo xeex. Hmm. ak biir dana soufflé xam nga ni ma tox si kawam xam ne waa kees dama maa yàqante ma. Hmm. nga wàcc. ma wàcc ba jeex tolloog moom. Hmm. di ko appel cause xam nga mu daw mu daw mépp ma lewtoo rek di ko xaar liir ko. déglu ko quoi waaw di ko liir non du déglu parce ñun ay xalalan mhm. booy jawaaw sooy xool sa moom a jéetu sa làmb mhm. mais danoo turbe tax ñu bëre moom xam ma kon damay ñëw rek appliqué mhm. parce que yàlla daa def ñu mën bëre fii sa xel lu la jox dangay ngay demal da ngay taxaw bi ngeen defee noonu waaw ndam rek nga wàccaat si ndam rek taxaw yi lan ma koose waaw mooy loolu après ñu taxaw moom muy taxaw di ma liir ma koy liir ma taxaw ma tegaat pas si kawam avancé avancé wat hmm. waaw ñu lew man ak moom fii nii maa ngi xool pour appel gauche quoi hmm. pour croise gauche bi hmm. gën a tafa tànk yi waajaat nga dóor gauche mu ñëwaat waaw booy jawaas gaynde la de waaw gaynde la champion la gaynde la wallaay moom it mu me fayu ngeen daje taxawal foofu après ngeen daje waaw dafa ñëw bu muy ñëw dama kaa dóor croisé mais <laughs> croisé bi da da croisé bi da kaa daa wàcc quoi. Mm-hmm. mu romb bu mu la nag la jàpp sama ndigg ba mu jeex. léegi mu jàpp seen ndigg mu jàpp say tànk. ci suuf ci côté pooj yi. yow nga jël sa loxo croché ko croché ko croché ko ci poqutaanam. waaw Lamine ma xool Lamine. waaw mu def lan mu sonn la bëgg laa plaqué. nga def lan nga def. damaa éliminé boobu ba. parce que sooy xool Lamine demal. Lamine demal nga def nan après. waaw fii damaa éliminé bopp bi. ndeysaan bopp bi laa wàccee. Uh-huh. teq benn loxo bi. xam nga amaguma ngeem sax su ma amoon ngeem dama koy dëpp carrément. da nga koy dëpp carrément waaw dama koy dëpp. carrément dabal su ma amoon ngeem la. félicitation jëli bi leer na Pambay commenté bi moom la Pambay def keroog moom la moom Jabaas def ci kanamu Pambay. bi mi ngi amee ci bi mu ko yóbboo Ardo moo ko daaneel. moom Pambay bi mu demee Ardo. bi mu demee Ardo confiance boobu ci lu daaneel Boy Jabaas ci la bokk. mbër dem ardo ñu day déstabiliser wu. Mhm. ca daf koy encourager. le cas de Eumeu Sen. mais ki ya nga xamante ni moo ko yóbbu ardo li muy yaakaar ci kii. Mhm. booba nekku fa. Mhm. moo moo gis aussi moo tax aussi euh, boo xoolee même même song bi daf ko yóotu. pap daa daw rek ràcc. dafa rasu ràcc bàyyi mu dem. li la wax la su bi a set ka sax lii mu demee. loxoom ak risque bi mu ciy bañ moo waral sax mu mu demee noonu mais su téye woon fenn ni mu ràcce parce que moo ko suturaloos ca song bi eggul même booy jabaas booy xool amul fu mu jàpp ñaari loxo yi dafa daw rek taatan mais jàppul li mu war a jàpp loolu moo indi loolu mais jël bi wax dëgg yàlla sit bu rafet la boo nga xamee mais mënoon naa gën a rafet ko comme ni mu ko waxee moom su amoon ngemb mën na mën mën na gën a rafet loolu da koy dëpp loolu c'est l'expert qui parle loo wax mbër waaw di nuyuwaale sama kosu bu baax a baax a baax ma ñëw ñëwal ma ci Clédor non xam nga tey boo gisee ngay sant ba naaw moo tax ma woo la <laughs> Clédor dafa entraîné nag Clédor waaw wax nañ ma ko bien avant que lii <laughs> benn entraîneur fee technicien bu dëkk Dakar daj na lu métti seetaan ko ci ci face bi ma koy nuyu de mooy Cheikh Diaw mm-hmm. mooy coach su naxal tudde ci euh, Rebeuss mm-hmm. mooy entraîneur ñoom double moteur mo nek ci staff Assane Ndiaye hmm. dañu genn mu ni ma pap mu ne ah mu ni ma pambay dina daan boy jabas ba ñibi te du ko yek mo ne ko tax mu ni ma dafa bakku rek hmm. ma xam ni am am na loolu boobu am na lu ma gis lool bi ko seex di wax hmm. sincèrement bobu lamb ji dikkagul mo tax kon lepp lu ngeen def ci lamb rek ngeen gën ci góorgóorlu ndax nit ñi bayyi xel ci yeen parce que